procureur de la République. Mhm. de faire le bëgg a wax mooy est-ce que mënuñu yokk prérogative maanaam corps de contrôle ba ñu dem fu gën a sori mooy li ma la doon wax sànq. ba ñu dem fu gën a sori que yamala rek jox procureur bu ko neexee ñu daal di. activer bu ko neexee ñu bañ a. activer neewoon na bu ma ñëwee euh, euh, kuréel yooyu di di di di kii nii. danaa oh. leen yokk seen doole bu baax a baax a baax. Mhm. loolu de waxoon na ko. loolu la la waaye fi mu ne di ñu ngi ci suuf. Mm. Euh, au lieu que ñu yokk loola waaye na yoon def yoo yoonam euh, liggéey na yoon def liggéey mu jeex mm-hmm. au lieu que ñu naan dañuy yokk euh, loi mayul président of nag mu dem ci procureur naan ko nag kenn mayu ko kenn mm-hmm. loi mayu ko kenn benn instruction la mën a am mu jóge ci ministre de garde des so wala président de la na def liggéeyam voilà le problème na président de République bàyyi juge yi ñu def seen liggéey na bàyyi ñi muy làq te ñépp xamu ko. d'accord alors bu ñu gisee ci nguuru président Wade amoon na ay rapport yu génnoon épinglé ay nit yu bokk ci moom ku ci mel ni bay laa Baylawan gisoon na li ko ci fekk ñu gis tamit ki nga xamante ne ni mooy Modibo Diop ay Condé Niang mais te bu ko méngaleek nguuru président Macky Sall bu fekkente ni président bi ni la nar a continuer ba mandaam jeex est-ce que à l'avenir ki fi nar a toog du indi fayantoo. mais Ablaye Wade Ablaye Wade tane man am nañu ñu ne damaa bañ Ablaye Wade ñu bëree bëri ñii ne damaa bañ Macky ñii ne damaa bañ diw mais Ablaye Wade tane li mu def ci njaaxum bari na waaye moo tane kii ne lu borom jàpp na ay ay benn wala ñaar waaye kii moom presque jàppul kenn xanaa Karim ma nga xam ne dafa bañ mu présenté. Euh, Macky man de jàpp naa ni feek mi ngi ci Sénégal njaaxum di fi jóge parce que ñii ko wër. mu teg leen ay gaay ay gaayam jàpp ma ne dana dana jël loo xam ne lii dana leen wàññi. mais tey bi mu waxee ne day taxawal commission boo xamante ne dinañu mën a gën a saytuwaat rapport yi ndax xalaatoo ne euh, xëy na bii pas changement am que ne am na bëgg-bëgg ngir bii yoon liggéeyam def euh, yoon def liggéeyam jusqu'au bout. xam xam nga journaliste nga yow sañu ma laa laaj mais nag Macky Sall euh, wégunu wallahi Macky Sall wégul sa waa Sénégal wégul OFNAC nag juge yi wégul ñu koy wégul kenn Macky wégunu bu nu wegoon démb bañ ko joxe yooyu rapport ak la ca ne danaan leneen weneen doxalin wu mu dox lu dul naan damay créer commission bu seet waaw dafa wóolu waa Cour des comptes wa Cour des comptes c'est des magistrats de haut niveau boroom yi xam-xam ñu dem def seen liggéey constaté nun kat constaté na lii constaté nii nangam nga ni damay dem dama koy dama koy jox euh, kooku daf noo yeb de. est-ce que du pour wàññi seen pouvoir. pouvoir bu tuuti bi pour des wàññi dama ne daf noo daf noo wégut Sénégal Macky Sall wégunu loolu la nit ñi war a xam lii mu def démb wone na ko euh, et puis waa Cour des comptes wax dëgg yàlla xaw ma fu ñu toll waaye. war seen xol warta neex gis ngeen fii ñu dem di seeti eh, ministre Moussa Diop mu dàq leen vous êtes de petits magistrats euh, excuse sax Ablaye Wade ci boppam moo dem di excuse wu mi ngi ci mu ngi ci Cour des gi lu garaaw a garaaw mu nga fee ci Louga di ministre di di maire voilà ay magistra ñëw nga dàq leen ne leen du ngeen dara nangam nangam li nga tuddee da nga singli singli mooy lan dafa mel da nga ne dañoo singli. Cheikh Oumar waaw. fukk fukk ak juróom-ñeent ca des nag kenn singliwu ko. Mhm. c'est-à-dire que dafa dem a dem a dem ba xam ni am nañu ko am am am am nañu ko protégé. ñu ca kaw a kaw. Mhm. ñu passé président de la mu xam ni bu bàyyi lii. musiba musiba la mu lank du ma dem te ku dem ma dàq la te kenn ka dem dafa daf koo dàq loolu problème bi. alors sànq maa ngi la koy laaj ma ne la euh, Wade bi mu fi nekkee ay jegeñaaleem tudd nañ leen ci rapport euh, jàpp nañ leen alors tey Macky Sall bu fekkente ni continuer na nii est-ce que mënuñu xaar ab fayanto parce que observateur averti yàgg nañu wax ni euh, président Macky Sall warta def lu yées lu fi Wade defoon. def na lu yées nag def na lu ko te jàpp ma jàpp ma ni Macky mën naa soppi parce que moo ma doon soppi dana wan wan yoon xam nga moom muy pré prêter serment bi ñu ko falaatee dafa diggewaat digge yëpp yu passé defu ca dara waxu ca dara euh, li ma leen mën a wax mooy leen jàpp ma ni feeg Macky Sall di di jeexal dana fi euh, dana fi soppi dana fi soppi soppi soppi yaakaaruma ko man yaakaar lu mu mënta def ci juróom-ñetti at yaakaaruma ne dina ko def fii te mm, xaw ma 2024 dana dem xaw ma du dem waaye bu demee yàlla na nu yàlla jox koo xam ne kii mësula laal ci système bi fi nekk 1962 ba fii nu ne. bu ñu la déggee dafay dafay nuru ne euh, corps de contrôle yi am ci Sénégal yépp doole jeeg lu mu mënti doon politique bi moo nekk ci kaw. mais c'est c'est maintenant c'est maintenant la politique. Euh, avant la patrie xam nga moom dafa noonu la patrie avant le parti. lépp dafa mel lu am soubassement politique en fait. lépp tout est politicien chez Macky Sall. dafa noonu la patrie avant le parti aujourd'hui c'est le parti et de loin avant la patrie. est-ce que politique googu lawul ba ci ak ak yelleefu nit yi bu ñu gisee ni léegi booy manifeste sax boo moyul doo fanaan sa kër. Euh, boo génnee ci mbedd bi di manifester boo moyul ñu jàpp la yóbbu la prison bu fekkee da nga génn di distribuer ay flyers moo ñu jàpp la yóbbu la est-ce que demuñ bay jalgati ak ak yeleefu doomu aadama. dafa am ku ne mag du ma tudd turam te moo ko wax Sénégal xam nga nu ñu leen di yore dictature Macky ko wax te tànk yooyu ca lay dox. Mhm. Macky supporté wul manifestation contre son régime. mi ngi tere place de l'indépendance dégg ngeen li ñu ci ci vidéo yi. mu naan ki bu ma bu fa dañuy ko li mu wax Abdoulaye Wade kenn mënu ko dégg. maa ngi dégg Ibrahima seen tey munaan naan dañuy waaye kenn warut dem ba place de l'indépendance nga fay kii waaye gis naa lu mu wax sa jamono yooyu lu mu wax Macky Sall la mu ko yekk. Mm-hmm. ne Macky mooy candidat France fii ci Sénégal lu mu ko yekkulamul bind na tey lu mu yekkul sama classe gi man sax tudd na ma ci nee na ma. Euh, mag euh, euh, nu mu tuddati danoo utiliser quoi. Mhm. kii waaye. est-ce que li nga ko dul ratee taxul ñu jàpp ne da nga ko da nga ko contre ba sax plainte bi. sa tour yow. contre gis nañu Macky Sall le président. mais contre ma Macky Sall mhm. ba xam nga nee nañ dama ko contre dama ko bañ. man julli laa du ma bañ nit. Mhm. xam nga lu ma bañ. ah bañ c'est trop dire contre en fait maanaam. xam nga lu ma bañ. doxalinam. ah balay waat nee ñoon dama ko bañ bañu ma ko doxalinam laa bañ. gis nga ñoom ñaar ñii. bu nekkoon ci meneen réew mu dul Sénégal grande démocratie pouvoir exécutif pouvoir judiciaire ak nit ñu ànd ak seen seen xam-xam ak seen fulla fayda ñoom ñaar ñëpp mën nañoo dem kaso. Macky ak Abdoulaye Wade ah ma wax la Abdoulaye Wade ba mu waree ba mu jeexalee ñaari fana ko fi des mu jox nguur gi Abdoulaye Macky Sall gracier na. ab sud jigéen sud africaine boo xam day def trafic de drogue ñu jàpp ko tëj ko dix ans de prison fii ci Sénégal mu waat à deux jours de son départ mu jëlub décret gracier ko waaw nit ñi duñu laaj lu tax luy ndeyam Macky Sall li muy bërki démb maa ngi ko dégg mu dem naan euh, les faux médicaments euh, sont la cause de beaucoup de décès mm-hmm. daf noo yëpp les les faux médicaments la cause de beaucoup te moom un trafiquant notoire de faux médicaments. Mhm. nanga Wuri Wuri Diallo. ñu jàpp ko tëj ko cinq ans mu def appel. Mhm. agul jeexagul de jeexagul mu jël gracier ko de ko c'est non non seulement gracier na de façon notoire un un notoire de de de médicaments de faux médicaments mhm. mais il a il a piétiné la loi. alors ci mbirum loolu loolu dégg ko de ñoom ñaar. dégg ngeen loolu. Mhm. Mm. wallaahi am bu nekkoon ci yenn réew yi am fulla yi fayda Macky Sall ak Abdoulaye Wade mën nañoo dem kaso. xëy na boo ma ko mayee rek xat yi ci mbirum Guy Marius Sagna gis nañu boobu ba léegi moom tamit mi ngi ci kaso bi dégg nañu ay avocat wax ni anam ñu ko ci kaso bi euh, ñaaw na metti na bu ñu sukkandikoo ci maître Khouraïssi Ba mi wax ni dañ ko denc ci quartier haute sécurité fa denc terroriste yi ci ñaari weer yi personnes rek la ci am droit de visite alors tey loolu yëpp bu ñu koy gis ak relation yi séq diggante Sénégal ak France est-ce que mënuñu wax ni loxo France mu ngi ci biir loolu moom du ma jàgg parce que wax dëgg yàlla wóoruma waaye li ma wóor mooy leen am na ku ma ko laaj xaw ma noo lànk ak nangam loo ci xalaat. Mhm. la ma ko tontu neexu moom laa leen di tontu. Mhm. man sama xalaat jéggi na noo noo xam nga ku war a jóg. Mhm. le peuple sénégalais. li fii. ñaari nit ñetti nit ñeenti nit quelle que soit leur bonne volonté mënuñ ci dara peuple sénégalais ñoo war a am fulla fayda. te xam ni Macky Sall amul wegeel ci nun nu jëm ko fajal suñu bopp waaye du giw gu gii Marius ak ñaar wala ñett ak ñeent c'est le peuple sénégalais qui doit prendre ses responsabilités le message est très clair kon ñu doon waxtaanee tey wàllub bonne gouvernance ak euh, coowal guerre ñu lay remercier bu baax a baax Modignon. je vous remercie également de m'avoir invité et de m'avoir permis d'apporter un certain nombre d'éclaircissements. merci beaucoup d'être venu c'était un plaisir am ko ak ñun ci plateau bi di remercier également bu baax Ndeye Dimet Ndaw ak Fatou Abdou Ndiaye ñu leen di jox rendez-vous demain incha allah même heure bàyyi leen ak flash d'information bi ngeen doon ci ak Nene Aïcha Ba.